envoyez de l'argent au Sénégal depuis l'Europe et le Royaume-Uni avec TapTapSend. Vos proches reçoivent l'argent directement sur leur compte Wave. C'est rapide et il n'y a pas de frais de retrait. Chez TapTapSend, la sécurité et la rapidité de vos transactions sont notre priorité. Qu'attendez-vous? Effectuez vos transferts maintenant. maintenant. commencé na di su ma nee sama xarit bi maa ngi ñu daa am fu may dem mu ne ma waa demal bu lal nag ci suuf ci karo ak benn darab di ci tëdd noonu di tax xale di continuer comme noonu ba am mat laa waaw di continuer di jaay sama bopp bu ma nit ma dem defal ko lu mu bëgg su ma nee am naa sama ñaari xarit yi bëgg ma toog ci néeg boobu xaar mu lijjantil ma ñett gaay ñett ñeent gaay su ma paree ma jox kooku 2000 ma daal di génn ndax bu ma sañoon jaay sama bopp bi su ma koy def comme paaka la ñuy jël di xat sama xol heure bu ma jullee nag maa ngi ñaan yàlla ma génn ci parce que doomu jullit la te góor la Aïcha jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen nuyu di leen siyaar dem am mbégte jàkkaarloo waat ak yéen seen seen leader bi di people 221 di nuyu kilifa diine kilifa day di ñaanaat réew mi Sénégal yàlla sunu borom dooli jàmm euh, ku ne gis na seen émission bi nga xam ni mooy concept jaar-jaar mu doon loo xam ne vraiment bi mu ñëwee ba tey sénégalais yu bari apprécié nañ ko parce que ñu bëri nee nañ ma guy gi tey ñun yàggoon nañoo am loo xam ne ñu ngi koy mu ngi koy dund suñu biir xol mu métti ñu te mënuñoo taxaw fenn di ko wax tey bëgguñu sunu kanam di feeñ ci écran waaye li may wax people ci sutura people ci xarala gi euh, fexe nañ ba euh, ut ay jumtukaay yoo xamante ni mën nañoo waxtaan ak yow te yaakaar naa lu baree bari mën nañ ko waxtaan ci sutura donc nag tey ma dalal sama benn jigéen boo xamante ni dafa am loo xam ne daf koy dund à cause de ay waajuram mu am naqar ak déception boo xam ne daf koy dund à cause de ay waajuram loolu nag yóbbee ko mu dem ba nekk ci yoon boo xamante ni heure bu jullee li muy ñaan mooy jéem a génn ci yoon boobu noonu waxtaan soxna si maa ngi lay nuyu. lay fay. mbaa yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm bu baax. Euh, naka naka yitte maa ngi ci jàmm bu baax. naka naka tàngaay bi. ah ñu ngi ci kawam ñu ngi soox rek. Euh. Mm. naka dëkk bi nag ak gàmm gi. ah ñu ngi koy yëguñu loolu. Mm. ndax ñu ngi tëju rek ci kër yi yaa ma gën a xam. Mm. mais fii ak ni mu wéetee nii mbaa wóor na. ah wóor na wóorut mais dénk lañ lépp yàlla. ñàkk pexe la rek. moo ñu fi bàyyi. Euh, d' accord euh, ñu def benn concept boo xam ne jaar-jaar la ku ne xam na nit ko koo gis ci àdduna rek euh, am na loo xam ne dund na ko mu neex wala mu naqari tey boo ñu doon raconté par rapport ak sa histoire lan nga dund loo xamante ni mën nañ ci waxtaan man ak waaw li nga wax moom dëgg la man moom sama jaar-jaar yaatu na xóot na te yàgg na te metti na parce que depuis ba ma amee 12 ans lay fàttaliku man samay jafe-jafe ak samay jaar-jaar ba tey. te yàlla def na man aw ma xarit aw ma àndandoo moo tax ñu bari duma ko mën di wax moo tax ba ma seetaanee say programme ma jël sa numéro téléphone enregistré ko ma a xëy na kii bu ma waxtaaneek moom xëy na lu bari dina mën a génn sama dënn comme réew mi moom da ngay dañ lay sa soxla te du faju wala ñu xamal la xas la ko wala ñu xoolee la ko wala ñu yokk ko looloo tax nag ma ne xaaral ma tiisoo ceeg yow far ma woo la nga nangul ma ko moo waral sa teewaay tey ci man. d' accord 12 ans laay am euh, euh, lu mooy fàttaliku bi nga nekkee ndaw da doon jàng wala jàngoo. non sama jàng moom mun naa ne ñaari classe la yem kon jàng kon jàngu ma waaw. ndaare nga doon jël. non non jëluma ndaare sax. mais damaa nekkoon ak waajur bi nga xam ne jigéen la comme sama yaay la comme maanaam mayuma woon fu ma jànge comprendre ma jàppalewu ma seetaan na ma waaw. di ma teg liggéey yu métti ak coon ak àdduna xam nga rek depuis ba ma xalaate ni daal war naa gisanteeg sam papa comme âge bi ma toll jour boobu daal laa gëj am problème jàmm suñu kër maanaam. ça veut dire bi nga pro ça veut bi nga juddoo sa papa. ma juddoo xaw ma sam papa. mais nag bu ma demee ba am ay 12 ans maa ngi dégg na sam papa mi ngi dund may def nag ay démarches pour jéem a xam sam papa mi ngi dund. ndax lu tax lu ko tee wëri doomam wala man moo dem wëri ko xool lan moo tee mënuma koo gis. ndax daan nga ci waxtaan ak sa yaay naan ko ana sama sama yaay daaw ma ci waxam parce que mayuma fit boobu wala xalaat boobu te bu xas day jaarale sa papa nangam sa nangam xam nga kon kooku doo am fitu toog naan ko sam papa nii wala sam papa naa ndax boo gisee réaction ba rek yow dootoo mën a laaj sa papa. mais nag ma de ba am ay information sam papa mi ngi fi. mu ngi dund ma daan na xaaral ma def ay démarches dem koo xooli. mais depuis boobu ba tey daal su ma demee seeti ko su ma ñëwee ñu dóor ma wala ñu boole ma police ñu dóor ma ñu ne man sama waajur danaan damay fàq. waaw su ma moom moo jur. moom moo ma jur su ma dóoree nii ba sonn amul ci man pexe daf may jéem a boole na man damay fàq damay génn damay taxawaalu ba tax na mu may boole police ñu may dóor ndax nee nañ man damay fàq te yàlla xam na ne fàq ma sam papa laa bëgg a wër gis ko pour mu jéem a gindi ci yenn situation yi comme xale laa. mais di donc moom soo ko mosaan ñëw ni ko sam papa laay wër da lay dóor. waaw même su ma nee waaw waaw su ma nee ko daal sam laa bëgg xam fu mu nekk laa demoon wëri comme waxoo ma ci dara te maa ngi dégg mu ngi dund. mu ne ma ko wërloo affaire yooyu fi nga demoon ba heure bi demal fanaane fa fexe ba ma génn daal uti fu ma fanaan mais bu ma ñëwee tant que police may jàpp dóor ma fanaanal ma fa. ba biir set daal ba ma jéemee gës sama mbiru papa moom laa gëj am jaam moom ba heure bii ba di ma toll nii. d'accord euh, ci lan lan nga dund entre yow ak sa yaay loo xamante ni tey yaa ngay fàttaliku fàttali ku tamoon a xari la. non bari na 12 ans ba euh, âge bi ma dem ba am ay ñetti doom kooku âge boobu bari na amul métit bi nga xam ne dund naa ko dañ may punir du ma ndékki yeewu 4 heures du matin di fóot bu guddee balaa ngaa tëdd mën a la jóg raxas ndab bale fomp yooyu yëpp sax gaa liggéey jigéen la c'est normal mais ak bu dee ki nga jur. nga ni bëgguma ko di nga ko conditionné di ko jàngal liggéey jigéen mais du du pas di ko traité ak affaire yooyu mais di ma dóor di ma maltraité di ma torturé lu metti loo xalaat sama man sama yaay def na ma ko man ba âge bii ma toll nii waaw. ndax doon nga ci waxtaan mbokk wala ñenn ci say membre famille. waaw suñ ma woowee nii naa ma sa yaay nee ne da ngay fàq yaay nee dama naan leen déedéet su ma leen expliqué duñ ma déglu parce que ñoom maanaam sama yaay doon na ci ñoom ki nga xam ne ñoom dañ koo ragal. bu lay lu lu maanaam bu defee dara pare da lay jiitu ci ñoom woote téléphone ku ne bu ma bu ma nee doo fanaan ma demee sama kër waa jaxase ma ak bi su ma dee demee ci ñoom ñu ne ma demal sa yaay neen nii sa yaay neen naa duñ ma déglu daal maanaam léegi da ngay dem ba da ngay sonn ba yeneen problème yi doo mun a sax dem seen sa kër famille. te boobu xaw ma samay mbokk papa parce que xaw ma sama papa samay mbokk yaay laa xam quelque lañ aw ma beneen choix aw ma pexe mooy loolu. ngi am 12 ans. ba ni ma demee ba am 13 ans fanaan boobu nag may fanaan ci mbedd mu dem di fanaan ci mbedd xam nga rek xale bu jigéen buy fanaan ci mbedd nekk xale day xam xale yu góor yi lay woo. lan moo parce que sama yaay nee na comme wane sam naa sama rek naa naa uti fu ma fanaan. xam nga li ma wax maanaam comme dem naa dem naa daal seeti sam papa comme dama jël samay décision ne damay wër sama papa bu ma ñëwee danaa ma util foo fanaan doo fanaan ci kër gi léegi nag su ma demee fanaan ci mbedd nag damay tase góor. ñoom ñoo may invité seen kër tamit xale la aw ma fu ma fanaan ku la ne ñëwal tam da ngay ñëw maa ngi am ay 12 ans 13 ans boobu âge bi mu ngi yokk parce que 12 ans la métti di commencé mais dem naa ba am ay 13 ans yàlla def taxawaalu mbedd boobu ak fanaan mbedd boobu ma dem ci ba ëmb ci. ba mu ëmbee tam mu métti trop ñëpp seetaan ma tam bàyyi ma. waaw dañ ma trompé parce que ki may woo këram may dem di fanaan sa guddi su ma xëyee mu yabal ma kër xaritam ma laay nekk bu guddee ma dem tëddi ci këram fa ëmbee. mooy sama doom bu góor bi. d'accord léegi bi nga ëmbee naka nga def say famille. non bu ma ëmbee kay la gën a metti moom parce que ba ma ëmbee maa ngi ci souffrir metti faale wuñ ma lijjantu ma affaire yi gën a metti te ba tey aw ma fenn fu ma ko jooyee tamit du ndey du baay lu ne def nañ ma ko daal même ëmb bi sax pexe nañ pour pour tout mu deñ mais mooy loolu yàlla xam nga rek lu mu def ma doom nag ci leen jël xale bi dem buux ma sama benn mbokk may ma kooku waaw waaw ma nekk foofu tam du dund lu metti ñu may tóotire naa ma lu la sa yaay di def lu raw moo fi am boo demee amoo foo jëm ak soo génnee sa yaay du la yat fat ci këram ak waaw li ngay dund fii boo foo fi ngay comme nii di nga am jàmm fii boo génnaatee dellu sa kër yaay lu metti nga fay dund comme ni mu fa daan dund kon ça veut dire ñu ngi may tóotire ñu ngi may jàpp comme ni ma sama yaay daan jàppe wala tamit mu digal leen ko xaw ma mais nag ma demee ba souffrir na affaire yi gën a metti ma jël nag samay décision ma tas sëy bi ma tasee tamit ma dund lu metti fu ne dugg naa fa fu ne nekk naa fa ma sonn loolu ma daa delluwaat sama kër yaay moom tam foofu tam mu gën a nekkat ay di may maltraité maag samay doom di ma saaga di ma xas di ma teg ay charge yi nga xam ne mënuma ko sama yaay bu ma jur ba tey waaw di ma def yu métti yi nga xam ne daal mënatuma koo diseer ak samay doom ci laa jël nag décision am sama benn xaritu yaay dama jëlal say responsabilité comme dem nga ba am ñetti doom fale nga jël say responsabilité xool ni ngay def ndax fii mën nañ la fee sax te boobaa du mujj fenn. te dafa yan sart ci kër gi. parce que dañ naa ma naay joxe ceeb ak diwlin ndax samay doom a ngi lekk ci kër gi. sama yaay bu ma jur bu fóot jotee mu ne ma joxeel bu ama kii jotee ndox jotee ñu ne ma sang say doom dañuy sangu ci ndox mi indi 5000. su ndox courant jotee ñu ne ma indi 5000 say doom dañuy taal làmp te aw ma ko te miinuma foofu tamit affaire yi gën a métti ci man aw ma benn xalaat. samay frère ñu benn laa am bu góor mais kooku moom yaakaar naa ne man sax maa ko tane waaw moom dooleem demewul noonu am nañ ma ne mais ñemewuñu maire bi comme li ma la wax ci famille rek maire bi moom bu xasee ba ne nii moom bul sonn kenn ñemewu moo tax kenn du jël ay en charge bu ñu wéetee nag danañ ma woo di ma kiiw ak yooyu mais duñ ñeme lu bari waaw. d'accord léegi bi nga jógee foofu ci nga jël say responsabilité. waaw ci laa nag jéem a xool nag nu ma def xale yi benn bis ma xëy indi leen dakaar ma leen fi indee dénkaane leen def semaine ma daa tàggu sama yaay ne ko maa ngi dem Dakar. maa ngi leen dénkaane maa ngi indi maa ngi leen indi dakaar waaw man maa ngi ci village yu ma indi leen Dakar. fi nga leen dénkaane ndax danga leen a xam. dama fa dëkkoon kër gi falaa ko mbedd moom laa doon sëy mais comme mbedd ma laa doon sëy te amoon naa ñoom jàmm kër gi njàkkaarloo woon ma dénk fa samay doom na kooku sama xarit la séq nañ lu ne ma demee nag ba xale def fa semaine ma la tàggu nag sama yaay ne ko man damaa bëgg a dem Dakar mu ne ma baax na. doom yooyu yaa kër yéen ko amoon. maa ak a ko am à part ki ma ki ma trompé mi ngi man. ak sama ñaari doom yi tamit ba tey na amoon naa fa ñaari doom. bi ngeen toppatoo bi waroon ci njabootam sa borom kër doon na ko def. non moom du toppatoo xale na xam naa bu doon toppatoo xale yi xëy na dinaa am lu ma dundee kon buñ ma tegee ndox wala courant kër ga dinaa ko mën a joxe mais nag comme aw ko te moom tam seetaan na ma nee na bu méttee dinaa dellusi man tamit na métti rek ma bañ faa dellu looloo tax ma toog. ñu toog foofu nag ba tàggoo nag na damay ñëw dakaar def fi quelque jours sama kër xarit yi. sama yaay ne ma baax na demal man damaa ex rek ku ne di ma woo téléphone sa yaay nee na dangaa génn kër ga tàggoo ko sa yaay nee na nii sa yaay nee na naa ma ne waa baax na bàyyi naa lépp ci loxo yàlla. ma xalaatee nag ma ne comme que man ma ngi woo ku ne ku nekk di ma woo te egseegu ma ma ne kon solution amatul maanaam dootuma dellu foofu waxtu bu wax neexee rek dootuma fa dellu. waaw ma ne comme mi ngi woote ku nekk mu wax la ñemeetumaa dellu foofu moom. waaw te kon maanaam jël na décision pour génnee ma moo tax muy profito di yeeyaat nopp nit ñi naan damaa dem da damaa dem Dakar tàggoowu ma ci laa new na sama benn kër xarit waxuma ko nag samay problème parce que man dama doon nit ki xam damay denc mënuma wax kenn sama problème mais dama ne ko comme man xaw ma fee te fii laa xam damaa bëgg ut néeg li mën a liggéey yor sama bopp ak samay doom sama xarit bi ak wax ko jëkkëram jëkkëram na ko loolu mooy solution parce que toog tamit mënul nekk te ay xale te dëkk bi kenn yoratul kenn mu ne ma léegi féeteel fii ngay ut ba amaale ma ne ko waa bu neexee yàlla léegi nag ci laa commencé ne sama kër xarit bi moom tam mu yor ma yor samay doom. xarit boobu loo doon ci lan nga doon yëngu. waaw ci laa commencé nag di def lu bon. parce que waaw parce que boobu bëgg naa am avance bu ma jëlee néeg ndax boobu aw ma carte aw ma kayitu juddu léegi nag ma bëgg lu ma jëlee néeg. boobu lan moo tax moo nga liggéey. boobu aw ma carte fu ma dé fu ma wax damaa bëgg dem liggéey fu ma ut liggéey dañ naa ma photocopie carte d'identité su ma amul photocopie carte d'identité duñ ma jël am na fi nga xam ne moom demoon naa fa ba commencé fa mais ndaw soosu dafa kii am na alal mais day fréquenter ay jaaykatu drogue ay jaaykatu yamba waa fréquentation bu bizarre di la yónni ay sàngara affaire yooyu léegi nag ma xam ne man saga man maa ngi ci ay problème di ut nu ma ci génnee bu ma duggee ci kër gii di fi liggéey ba police fekk ma fi bu boobaa dootuma mën a sata sama bopp. waa taman gor laa bëgguma ñu taqal ma ci yenn yi ma daal na naa fi arrêté ndax lii tam du solution mais boob ba tey tam fu ne fu ma dem photocopie wala carte d'identité lañ may laaj moo tax liggéeyu ma waaw. def lu bon def lu bon liggéey ça veut ci laa commencé na di jaay sama bopp su ma nee sama xarit bi maa ngi ñu daa am fu may dem mu ne ma waa demal boo ñëwee fekk añ parce que magum jëmm laa tam su ma nee damay dem fenn ñaama demal. bu ma demee daal di ut sama junni ut sama ñaari junni ci génn ci àll bi ma ñëwee daal di bokk benn natt di ko fa dajale su ma dem su ma am toogaatee ba amaat paanu natt ma tàggoo génn wala ma am ku ma woo ma fexe nu ma génnee may dajale. boobu boo doon sa bopp day may góor yu la daan woo wala day am benn place boo daan dem. non dafa am ñu may woo man du ma ñemewu dem ci benn place moom parce que man xam naa ne nattu moo ma dugal ci yii du mbon ndax bu doon mbon mun naa dem auberge wala baar na gënuñu maa xam Dakar. yàgg naa fi mais nag jéem maa def loolu damay jéem comme nit woo la tey bu subaa koo koy joxe sa numéro kooku joxe sa numéro kooku joxe sa numéro noonu la numéro yi demee léegi bu leen nit woowee rek yow danga nga naan naa dem bu ko defee may dajale nag loolu nag ma doon def nag ci laay dajale bu am néeg ma joxe avance mu des nag mat laa may lal nag ci suuf ci karo ak benn darab di ci tëdd noonu di xale di continuer comme noonu ba am mat laa waaw di continuer di jaay sama bopp bu ma nit woowee ma dem defal ko lu mu bëgg su ma nee am naa sama ñaari xarit yi bëgg ma toog ci néeg boobu xaar mu lijjantil ma ñett gaay ñett ñeenti gaay su ma paree ma jox kooku 2000 ma daal di génn su ma ñëwee loolu laay dajale mën cee ut mat laa ñëw ñu ci li nga xam ne war naa mën a yor samay doom waaw. d'accord premier jour bi njëkk a tëdd góor mu pare fay la xaalis naka nga ko dundee. na ci man. parce que góor góor attanu yéen ni no premier jour dama xalaat ma man li ma def tey musuma def lu bon parce que dama daan xalaat ma ni képp kuy def lu bon lu tax ñun ñu koy def dama ko daan maanaam dama daan toog di seetaan vidéo kuy def lu bon ma koy condamné di ko jugé mais ba ma demee tey ba jaay sama bopp ma ni man dootuma jugé ci nit parce que ndeke nit lu mu def am na lu tax tollu ay ma tollu nag moo tax ma def ko mu doonoon li nga xam ne xaalis bi lekkuma ko mais heure ma tijjee sama poset xool ko rek sama xel mi day jeex te mënuma xaru ndax damaa ay doom dem naa ba naroon jël gaal gi bañ koy suuga tëgg mais ma xalaat aw ma ku ma dénk samay doom ku ma ma xalaat samay famille sama yaay yàq na ma fa dinañ may woo nag di ma kii mais duñ la téye sa doom te du ñaam fukki dërëm bokk kook yow te xooluñu yaa ngi lekk wala yaa ngi naan wala yaa ngi am foo tëgg léegi nag ma daan ne ah solution amatul naa bàyyi ba gaal tëggaat du ñàkk fii ba fan yi dinaa am ku ma téewalaat samay doom ngir rien que ma bàyyi jaay sama bopp bi moom jaraloon na ma man ne te jaay naa tamit jaay boo xalaat def naa ko. Ah, waaw maanaam do ba ma am utee liggéey aw ma jéem naa fortaatu jaay mais jaay bi nga xam ne yow da ngaa war a dundal ñetti doom war a fay luyaas kër jàmbur. waral lekk waral a naan bu tayee ñu ne la courant ñëw na bu subaa ñu ne la ndox ñëw na. parce que yow mun ndékk añ nag yow jaay lekk na sa njaay léegi nag mënutuma jaay nag mais loo xalaat rek ci commencé war nga ko commencé def nit lépp na xaalis jox ma ma jaay ma dépensé wu lépp léegi nan laay def ma continué waat delluwaat di jaayaat sama bopp parce que soo jaayal sa bopp say doom dañuy xëy na la yaay indi néeg bi nga dëkk danga ko war a fay. courant bi da nga ko war a fay ndox mi danga koy fay donte maa ngi def lu bon man man bonuma ndax bu ma sañoon jaay sama bopp bi su ma koy def comme paaka la ñuy jël di xat sama xol heure bu ma jullee nag maa ngi ñaan yàlla ma génn ci parce que doomu jullit la te góor la ñu may waxal lu bon waruñu ma fekk ci lu bon wala ñu may seen ci lu bon waruñu ma ci gis wala tamit ñaanuma yàlla sama doom itam màgg ba yem ci heure bu may fay alxuraan di jël xaasu bët bi jox samay doom na leen fay leen alxuraan day mel ni sama butit yi la ñuy génne mais aw ma choix du ma bàyyi xale yi seen avenir yàqu duñ jàngi aw ma benn pexe te xale yi amuñu këyit man aw ma këyit ndax man su ma amul kayit xale yi mënuñoo am kayit nu may def. léegi nag loolu laay def nag du dundal samay doom pour arab moom laay fay ren nag bëgg naa inscrire xale yi français incha allah. même bu ma amul tamit damay jaar sama bopp dajale jënd leen ay yére inscrit leen ñu dem jàngi te même lu bon loolu mooy continuer mais loolu moom maa ngi ñaan yàlla mu dindil ma ko. donc jaay sa bopp boobu noonu ba tey yow ci ngay continuer di ko dund. ba tey nii bu buñ ma woowoon tey tey tey tey ma def ko parce que wéeru ma na chaque jour tamit damay tuub ndax saa yi ma jullee. damay jóg def ñaar raak fajar ñaan yàlla bu deux heures trois heures du matin damay ñaan yàlla mu may ma lu ma jàpp ma bàyyi jaay sama bopp. ndax loolu moom ba tey nii nii nii buñ toogoon nii tamit nit woo ma tama te ci laay dund samay doon may def damay wut damay jël parce que samay doom ci la ñuy lekk ci la ñuy naan aw beneen pexe aw ko. d'accord foofu noonu man damay samp laaj ndax boo xoolee tey ndakaaru liggéey fi nekk bari na tey liggéey jànq mu ngi fi tey liggéey fóot mu ngi fi tey euh, yaakaaroo ni boo xoolee tey say càmmañ comme man ni ma woowee ni ma ah guy gi man kat dama soxla lii ndax dama nekk ci lii nii euh, tey yaakaar naa ci lii nga nekk képp koo xamante ni woo nga ko ni ko damay jaay sama bopp waaye dama ci bëgg génn dama soxla cent mille wala deux cent mille ngir yàlla ak yonent bi jàppale leen ma yaakaar naa képp kuy nit rawatina ngay jullit yor xolu doomu aadama doon gor jàppale ci loolu nga yaakaar tey jaay sa bopp boobu noonu nekkul dernière solution dem liggéey euh, xëy dem liggéey même bu nekkee benn mille francs nga am wala 2000 jàpp naa ni tey yàlla mën na la ko fulal ba mu nekk ay million ba boo ci toggee même bu nekkee mbaxal nga togg sax dina suur te weer na dee nga am yax jàppoo ne jaay sa bopp boobu noonu nekkul dernière solution. non aw pexe bu ma la xëy dëgg parce que xalaat naa comme li ma la waxoon liggéey mi te bu moo ko amoon tam ni xale yi di tëjoo nii may dem mën naa ko mais foo dem ñu ne la photocopie carte d'identité ñaareel ba booy dem tey fan ngay bàyyi say doom yow gis nga fi ma nekk nii gisoo fi mindeef kenn na fi nekk te locataire bees moo tax mu fi yendu mais xale yi dañuy yendoo tëju te lii moo gën a bon ngay xëy suba ba ngoon tëj say doom ci kër ñaari xale ku ci gën a mag 10 ans la am léegi nga leen di bàyyi ñuy tëj ñuy tëju ba ma ñëwee léegi man maa tijji bunt bi teg ci daal parce que bu may génn dañuy tëju fii bu ñu amee soxla lépp ci biir fii lañ koy defee ak mu ndaw laa leen fi tegaloon su ma leen soxlaa dama leen di woo su ma yorul xaalis te may génn bàyyiwuma fi ñaar dërëm su ma demee ba benn dama leen di woo téléphone dem leen retiré naa nga lu leen retiré ngeen lekk maa ngi ñëw parce que noonu laa mën a def awma fu ma leen dénkaane xale yi moom même bu ma doon liggéey tey jii man awma fu ma leen dénkaane dama leen di tëj kay ma dem liggéeyi su ma wàccee fekkaat leen ci biir. lu ñu soxla bala ñoo tëdd guddi dama leen koy jëndal su ñu xëyee bu ñu déggee bur wi ci kër gi dañuy teel a tëj buntu néeg bi nee naa ne bu ngeen déggee bur wi parantee bi sax bu leen koy yëndu parce que wóorut te kër gi comme day wéet gis nga kenn du fi nekk te bu doon bu fi ne doon nekk tamit doo leen wax teel leen ma samay doom parce que dëkkandoo dox dajaleñ moo ñu boole. d'accord ndax sa bopp amul risque. am na risque bu ne parce que man feebar bu ne jot jànkonteel naa ko ci. parce que infection bu ne da nga ko naan xale yu ndaw yi ngay tase say moroomu doom mais lépp yaa ngi bëgg a dundal say doom amoo foo sukkandiku te comme li nga wax sànq dem naan samay dimbalee ma am lu ma liggéey du ko def ndax li ma la wax rek sagam lii dama cee dugg di ñaan yàlla génn ci mu metti ma te aw ma solution kooku doo dem di weer sa bopp man sama dëkkandoo sax du la ñaan juróomi dërëmu suukar te damay toog fii xëy war a xëy suba xalaat ni xale yi amuñu luñ lekk barke Seydina Muhammad ak sama bakkanu njaboot. damay xëy war leen a jox ndékki guddi googu yëpp du ma nalaw damay julli lu ne ma dugg ci parce que xalaat naa ne 1000 francs yi nga xam ne bu xale yi xëyee ndékki sax yoru ko te ku ndaw ki bu xëyee lu muy njëkk a laaj damaa xiif ku ndaw ki heure bu xëyee lekk moo tax chaque jour moom mooy gën a def problème sama bopp bi léegi fan nga leen di bàyyi dem liggéeyi kan moo lay jël te amoo kayit judd moo carte d'identité kan te nga am ndey muy dund bàyyi du dund ba may xam sama papa yàggul. waaw foofu noonu laa bëgg ñëw ci yan période kon ba tey sa papa euh, xam xamante ngeen wala xamante goo leen. ba ma koy xam ak ba mu gaañoo yàggul parce que diggante bu may fexe ba xam ay biram dañ ma wax ne ma mi ngi dafa am fu ñu ma tatal na ma fa nekk ci grand place ba. yàlla def nag ma defaat samay démarches na comme léegi màgg naa ba yoroo sama bopp sama kër sama néeg donte maa ngi def lu bon mais naa ko wari ma wax lu may dund. mu xam ko durant bu may juddoo ba tey ba ma xàmmee ba tey. waaw ah, pare woon nga pour wax sa papa li ngay doon. woon naa wax sam lépp parce que dama parce que nit amatuma woon nëbbu. te bu ma ko gisoon tam ma lépp lu may dund. moo xam daf may rey moo xam daf may ba ma xam ma xamal ko ni ko situation bi laay dund. parce que métti na te gisuma kenn te ba ma ko dalee wër ba tey laa am problème la problème yi gën a saturé sama bopp. ndax jaay sa bopp bi ngay jaay sa bopp mosoo ci am jafe-jafe. am naa jafe-jafe ba taay police sax jàpp na ma ci police sax jàpp na ma ci waaw parce que lu mu bëgg amul proposé ma lu mënul nekk man nangu ko te xaw ma ne homme de la ñu dem ba ay quelque temps ma fàtte mu woo ma ci numéro beneen numéro wala mu woo ma tam ci numéro rek maa comprendre xàmmeewul ne ma danaa la seet si nangam nangam ma foog na client la comme noonu rek ma accueillir ko mu ñëw ma ma ko accueillir ndeke buum la mais man ba ma ko acquérir ba ma gungee jëli ko man ci laa xam ne kii moom tey yàlla ñëw na. mais nag comme lépp pour samay doom la rek amatuma tiitu tiituwaay mais nag gor laa su ma sañoon duñ ma ci jàpp. léegi nag ñooñu tam daal di ñëw di ma chantage xam nga yóbbu ma ci oto bi yóbbu ma police commissariat lu ne defloo nañ ma ko tamit. d'accord euh, ndax tey jël nga décision ni man mii su ma amee leneen lu ma nit mën a jàppalee pour ma liggéey dinaa jël décision bàyyi lii parce que man. au fond ni ma la déggee ngay wax dafa mel ni tey ci lii nga nekk ni gënalu la. non gënalu ma moom wala xëy dëgg rek parce que utuma ci bànneex utuma ci euh, am-am waaw comme tey bu ma neexoo ma naan yëre laa ci wala dàll wala or déedéet utuma ci yooyu yëpp awma ci awma oor awma téléphone bu baax yoruma li nga xam ne samay morom yor nañ ko xaalis bi lu ma ciy doyee fay ci lekk ak naan ak samay doom kese laa ci soxla parce que aw ma beneen solution mais tey su ma gisoon ku ma ci génnee tey tey dinaa Seydina Mohamed seede na ma def ñaar rakk sant ko continuer liggéey te bàyyi ko parce que neexuma gënaluma te bëgguma tam sama doom yi màgg ci loolu muy doon lu gën a metti te bëgguma tamit noonu yi tamit gën xam li may dund moo tax utuma fréquentation pour ñu may xama wala ñu may waxal gis nga ma ni ma nekkee nii laa nekkee aw ma xarit aw ma kenn. te par rapport ak situation kër gi ni ma ko gisee boo amee client boo xam ne da nga ko recevoir sa kër nooy def ak say doom. damay dàq xale yi dama leen damay cent franc wala fukki dërëm. na leen dem leen maa dama am lu may def daa am ku may waxtaanal wala damaa bëgg nalaw wala tay la leen ñu génn suñ demee fo wi ma daal bu dee guddi la. ci kaw terrasse bi laa leen jox sama téléphone ñuy jeu dañoo bëgg jeu ma jënd leen foofu teg leen ci téléphone bi ñuy ci kaw ñuy jeu ma profito mais loolu bëgguma ñu bett ma ci benn yoon moo tax ba bëgg koo bàyyi balaa trop tard. mu nekkoon loo xam ne li ma leen di wax rek people 221 euh, lépp lu muy def rek daf koy def ci suudura donc dégg ngeen ndaw si li mu wax li muy dund métti na dem na tey bay jaay boppam à cause de yaayam euh, man nag sama xalaat bopp jàpp naa ne tey. loolu moo nekkoon dernière solution waaye moom nee na amul la fa gën te ku amul la fa gën am la fa sës en tout cas maa ngi wax képp koo xam ne yaa ngi may seetaan na nga ko jàppale euh, muy liggéey même bu nekkee euh, posel ma téléphone boobu même bu nekkee am na dara loo xam ne mu ngi koy far par weer loolu noonu tey mën na ko satisfaire mu génn ci lii mu nekk parce que koo xam ne nee na jaay ma sama bopp dew ma baar dew ma boîte lépp lu may def dama koy def ci sutura journée bi su ma jaamee ñetti junni doyal naa donc takk ma ci or utuma ci kër gu rafet utuma ci yër gu rafet au moins sax téléphone bu baax donc kooku jàpp naa ne defu ko pour bonheuru àdduna daf koy def ngir faj soxlaam ak soxlay doomam donc nag may wax képp koo xamante ni yaa ngi seetaan people 221 sama numéro ngi noonu boo ma woowee ngalawaay ndaw si nañ leen ko jàppale nañ leen ko def comme sunu sœur parce que man li may wax à chaque fois ñii dañ leen a war a andiwaat société bi man damay sol sama dàll dawal sama moto tàggu sama soxna dem ci baar yi toog fa mais dangay gis tey neuf personnes di dugg ci baar wala ci boîte wala ci auberge neuf personnes huit personnes yëpp dañ naan la amuñu lu ñuy dund wala dañu am déception wala dañu découragé seen àdduna moo tax tey ñuy dund loolu man dama koy def dama wax ma jékki dugg ci baar wala ci boîte wala feneen mais neuf personnes yoo gis huit personnes dañ naan la ñun ci lii ñu nekk nii gënaluñu ñun dañoo bëgg a génn ci lii ñu nekk donc nag maa ngi ñaan ngir yàlla ak yonante bi dëkk bi am na ay bonne volonté am na ñuy def te yàlla tax nañ leen ko jàppale ak ñeneen ñu mel ni moom man nag ubbil naa leen samay micro ubbil naa leen samay ligne képp koo xam ne woo nga ma bëgg ñu partager lan li nga xam ne yaa ngi koy dund au fond di cœur ci sutura pare nañ pour def ko ngir lan yàlla sunu borom dolli sutura yàlla sunu borom gën la jàpp su ma amoon taxawaay wala ma amoon lu ma jàpp du ma ko def te maa ngi ñaan yàlla képp ku ma dégg bu dee mën na maa dimbali te yàlla tax mu def ma ko ndax li may def gënalu ma neexul yàlla neexul yonent te neexuma man mi koy def dama amul choix rek maa ngi ñaan nag ñu dimbali ma rek te yàlla tax ma génn ci lu bon li ma nekk balaa moo trop tard wala ma ciy am feebar bi nga xam ne du ma am lu ma fajoo wala samay doom di ko xam wala samay doom di ma ñàkk lu ne xalaat naa ko nag gaal yi sax xalaat naa ko. mais am ba tey ba ansa yaay yéen a ngi koy dégg ba tey. mi ngi dund aw ma du ko dégg rarement rek moo ko woowee sax ni muy waxee ak man nii day mel ni ku ma soofantal moo tax dee may di insister dinaa def na sama devoir ma sama crédit woo ko nuyonte kafre jàmm sant pare naa ci. lan nga jàpp lan nga tax moo jàpp ni sa yaay def la comme benn genre ennemi parce que man woy juróog doom jàpp naa ni loolu noonu war na cee mën a ñàkk. non man ni ma man sama xalaat laay wax kenn waxu ma mais man damaa xalaat ne dafa am compte bu ma amoon ak paa bi rek waaw compte boobu laa ragal nii moom lay fay ci man parce que problème bi boo seetloo man sama xalaat ba ma nee damaa bëgg gis sama papa moom ba tey laa gëj am jaam kon mun naa ne compte la ba ni paa ba ma ko xamee quelques mois mu gaañu ba tey neew ma si gir demu fa yónneewul waxul samay rekk dem ne waxul dara waaw kon nag man raak loolu laa jàpp ne man compte boobu paa bi la mais compte boobu tey man dong ci man lay rattrapé parce que man ak paa man rek laa am ak paa bi kon loolu lépp tey ci man la rattrapé mais maa ngi koy dooloo yàlla di ñaan mu teggil ma ko. wax ñu dimbali ma rek tax ma génn ci li may def situation yi ma nekk mooy jaay sama pare lépp pare naa ma dimbali ko sama bopp dimbali ci samay doom mu lew ma doom ma xam ne man maa ngi lekk lu lew. mais di jaamu yàlla di tuub chaque jour te boo paree loolu ngay tuub yaa ngi ciy dellu lu ma gën a naqari loolu ci la boobu chaque jour nga tooñ suñu borom te àdduna dafa jeexagut kenn xamul lan la te maa ngi yor ay doom kon bëgguma cee yàgg bala ñu maa xam na ay doom yu góor rek la ma yàlla may. di leen ubbilaat suñuy porte képp koo xamante ne jàpp nga ni am nga ci solution wala képp koo xam ne am nga ci idée aussi tamit maa ngi noonu seen frère seen xarit seen doom guy gi tàll na leen ay micro am ubbil na leen ay liggéeyam ngeen ñëw ñu waxtaanee ko Aïcha maa ngi leen di jaajëfal di leen jox dig daja seen yeneen émission jaar jaar fii ci People 221 jërë ngeen jëf